Sama gede gir magi nyanyi lawan moko bala menyi bi ma ne bésu ñàkk si bési Afrika don benn Ici Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique Même si le ciel tombait, luttons pour la paix Quand jàmm Afrika mon lay ñaan ma ne jàmm Afrika mooy suñu naataange wàllu digital news jaa ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen uh, dalal ci suñu premier numéro bi nga xamante ni moom moo di artisan locaux artisan locaux nag di uh, keppaar gi nga xamante ne fii la ñuy saytoo lépp loo xamante ne moom mooy secteur artisanat ci réewum Sénégal uh, ñuy xool ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax ouvrier yi na ñi nga xamante ne daanaka ñoom ñoo nekk ci mbedd yi xëy na bàyyiwul leen xel bu baax waaye li gën a am solo ci réew mi ci wàllu artisanat nekk ci seen loxo ñu koy def noonee nag ñu seeti ji ci Ross Béthio euh, koo xamante ni mi ngi yëngu ci wàllu menuiserie métallique ñu koy wax euh, moor Mbow. Mor ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak wàllu digital news. waa ñu ngi leen di fay bu baax a baax Omar ñu ngi lay fay bu baax di nuyu waa wàllu digital bu baax di rafetlu seen liggéey macha allah ndax ñu mel ni yéen dañoo war a yaatal bu baax baax ndax yeneen tax ñu xam ñu ndax wax dëgg yàlla liggéey bi ngeen liggéey set na rafet na kon ñu ngi leen di nuyu. du nuyu waa Ross Béthio du nuyu kull koo xam ne rek yaa ngi yeewoo Ross Béthio ñu ngi lay nuyu baax a baax. Euh, laaj bu njëkk bi mooy yéen a ngi ci secteur bi nga xamante ni moom moo di menuiserie métallique. Hmm. mu mel na que nekkul loo xamante ne da ngeen ko tënk ci benn roq rek nan la mel exactement. waaw jërëjëf loolu moom dinañ ci sawar a tontu ndax mënu euh, menuiserie métallique dafa yaatu dafa bëri ay branches yu mu yu mu yu mu lëkkale ndax du wàllu weñ rek mooy si métallique. ndax menuiserie métallique léegi yaatu na yaatu goo xam ni vraiment ñu ngi yëngu fi mu ne nii ci menuiserie bois ñu ngi yëngu ci porte en fer yi ñu ngi yëngu ci mbirum aluminium ñu ngi yëngu ci mbiru inox vraiment yooyu yëpp ñu ngi ciy yëngatu kon menuiserie métallique daal dafa yaatu. waaye yaatu gi euh, tey lan la ñu mën a gis ni yokk ngeen ko ci maanaam parce que bu fekkente ne da ngeen tàmbalee ci porte weñ kese. te nee nga dem ngeen ba laal menuiserie bois menuiserie aluminium ak leneen leneen. dañ bëgg nga defal ñu benn bu ci nekk détail bi naka ngeen ci duggee waaw niñ ci duggee mooy euh, mbirum aluminium mhm. def nañ formation bi mhm. dem nañ gëssu ko comme xam-xam du doy mhm. dañoo dem gëssu ko ba am ci xam-xam ñu ubbi atelier di ci liggéey mbirum inox bi aussi dañoo def formation bi dem Dakar gëssu ji ba xam yokk suñu xam-xam ñëw di ci yëngatu mbirum menuisier bois aussi dañoo am ñeneen ñu ñu àndal ñoo xam ne bu ñu amee jubluwaale ci mbirum mbirum bois bi ñoom lañ koy jox yu yëngatu ci noonu daal lañ ko yaatale aluminium bi naka la demee exactement nit ñi parce que ku ne xam na ni bu ngeen soxlaa matériel bi du fii si Ross Béthio ngeen koy amee du Ndar ngeen koy amee nan la liggéeyam mel ci goxu Waalo bi. waaw ni mu liggéeyam mel mooy euh, wax dëgg yàlla yàlla def na alhamdulilah nit ñi xëy na bu njëkk xamuñu woon waaye léegi xam nañu bu baax a baax ndax. wane nañ suñuy qualité fu nekk parce que bëri na fu tey fooy wër ci Ross Béthio ci wàllum aluminium su ma liggéeyal buntu ba rek maa liggéey fenêtre ba kon vraiment ñu bare bari commencé nañu xam ci aluminium ñu ngi liggéeyandoo nag ak waa G3S bu saint ñoom la ñuy liggéeyandoo lépp luñ soxla ci wàllum aluminium ci wàllum verre ci wàllum accessoire ñoom la ñuy téléphoné ñu taal seen oto indil ñu ko fii ci Ross Béthio wàllu euh, euh, kii bi euh, inox bi wàllu inox xam na ni mhm. tendance bu bees la mu mel na que nit ñi commencé nañ ko jël

de bu formation bu ba xam li nga sécurité parce que vraiment bëri na dëkk bi tey rampe escalier yoo xam ni maa ko liggéey inox la bëri yeneen i pro yoo xam te ay wàllum inox la yoon vraiment allah parce que rampe rampe yi koy liggéey mhm. porte inox yi ñu ngi koy liggéey ñu ngi liggéey gris yi ñu ngi liggéey lépp daal lu war a yëngu ci wàllu inox ñu ngi koy ñu ngi ciy liggéey baax a baax. inox bi lan mooy différence am ak weñ gu ñuul bi. waaw inox liy différence am ak weñ gu ñuul moom vraiment ni mu mel nii rek nii la mel. moom du xomaag. ba pare dafa xaw a acier. moom xorom yebu ko. tey ni weñ nga nekk ci biir xorom mu gaaw ko dagg. fekku ci inox parce que inox dafa am benn benn acier bu ci nekk. Mhm. ba pare nii rek lay mel amul peinture amul dara toujours dangay ngay fomp rek. soo xëyee da ngay somp rek muy biree loolu mooy différence ak weñ gi moo gën a nekk qualité kon daal mooy classique bi moo gën a classique daal waaw vraiment vraiment moo eh, seen eh, différence ci wàllu liggéey bi yëpp waaw bu dee ci wàllu liggéey aussi moo gën a cher parce que inox vraiment dafa nekk matière boo xam ni moo xaw a gën a cher sax aluminium ci benn côté moom vraiment matière bu cher la waaye nag boo ko liggéey rek di nga xam ne jar na ko ci taaram bu dee ci wàllu eh, ku ne xam ne ni sunu gox yi ñu nekk daanaka goxu ay xorom la ak yooyu mhm. nan la mel ak weñ gu ñuul ban moo gën a résistant. non inoxide bi moo gën vraiment parce que weñ gu ñuul gi liggéey nañ ci luur liggéey nañ ci lese mais inoxide bi léegi daal ñi ko liggéeylu ñëpp vraiment ñëwaat nañ ba fii xamal nañ gis nañ seen bopp bu mm-hmm. mm-hmm. euh, euh, tamit ñu ñu nga ko sànq moom it ci départ bi. Mm-hmm. mu mel na que fi inox bi di dem ak fi aluminium bi di dem bokkul wala ñoom ñaar ñu mën a. ànd waaw benn benn programme la parce que man damay am chantier. ñu jox ma wàllum inox bi jox ma wàllum aluminium bi jox ma wàllum fer bi. Mm-hmm. parce que léegi buntu porte garage yi. Mm-hmm. en fer lañ koy def. Mm-hmm. mais boo xoolee porte saal yi lu ci ëpp léegi aluminium lañ koy def. mais léegi li jëm ci wàllum gris yi bu ñu defaree fenêtre aluminium ba pare gris yi inox lañ koy def porte rentrée yi aussi léegi inox lañ koy def. kon léegi liggéey bi léegi dafa jaxasoo ci bâtiment bi léegi da nga ñëw bâtiment fekk fa fer sooy dugg si ci magasin yi ak porte garage yi mais soo duggee rek da ngay gis buntu inox yi moom ngay def mooy porte rentrée yi ci biir fenêtre yi ak porte salle yi aluminium lay nekk mais soo wiiree ci gannaaw bâtiment bi aussi fenêtre ne ci biir kër aussi lu ci ëpp dañ koy def bois kon ñeent yëpp dañuy mën a nekkandoo ci biir bâtiment bi te yooyu yëpp dafay daal day daje ci yow ci benn commande bi yëpp na buntu ko ñu ngi koy liggéey buntu Djibouti yu rafet yoo xam leen fenêtre saali ñu liggéey leen li jëm ci wàllu sama loxo ma livré borom ay caabeem waaw lépp ci kaw confiance kon mën na nit ñi yaa ngi ciy gis sa bopp. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant aussi xale yi ma àndal maa ngi ànd aussi ay xale yu am jom xale yu vraiment yu nangoo liggéey li nga xam te ne mooy suma bras droit topp si man mooy Vieux Mbodj Vieux Mbodj moo topp si man su ma fi nekkul moo fi nekk xale bu yaru la xale bu baax la xale yi des yëpp topp si ginnaawam bu dee ci wàllu aluminium bi papa moo fa nekk dëgg yàlla ñun ñëpp ñu ay jàmbaar di ci ndigal su ma nee leen def la leen bàyyi la ñu bàyyi wax dëgg yàlla xale yu neex nekkal la ma yàlla boole justement foofu la ñuy teer sax xale yooyu ngay wax noonu nan ngay liggéeyandoo ak ñoom dañu nekk ay apprenti yoo xam ne da nga leen teg place apprenti rek wala da nga leen embauché di leen fay wala da nga leen di fay prestation bu liggéey nga fay leen waaw nan la mbir mi demee waaw lépp am na fi nag parce que sooy soog ñëw dañ lay jàpp comme apprenti jàngal leen métier li ne si ñun ñu def ko ci yow ci kaw ndigal tamit mhm. vraiment bo demee tamit ba commencé xam dara dinañ lay neexal bu amé liggéey waye so demee ba qualifier nak am say soxla wax deug yalla bu liggéey ñëwé dañuy xol la yello ak yow ci liggéey ba ñu jox la waaw noonu daal liggéey xalé ñu duñu dal bayi bàyyi leen ci gan euh, possibilité de formation yi xalé yi am ay diplôme professionnel diplôme état hmm. ndax yeen a ngi liggéey ci walu woowu waaw ñu ngi ci def ay gëstu parce que bokku nañ ci ben kuréel go xamni Euh, mooy cercle des ouvriers de Ross Béthio ci lañ bokk suñ président di Mour Seck wax dëgg yàlla mu ngi ci def ay jéego di jiim a ay formation pour rank rek yok xam xam xam-xamu euh, xalé yi yooyu yëpp aussi ñu ngi ci def ay jéego wax dëgg yalla wax mm-hmm. sen ndam moy suñu ndam mm-hmm. tey ndax euh, liggéey yi nga xamante ne mi ngi am ci état bi wala marché public yeeg yooyu ndax yooyu yéen a ngi ciy participer. waaw wax dëgg yàlla ñu ngi ci ñu ci ciy dugal suñu loxo parce que li nga xam ne mooy tax ñu war cee yëngu. Mhm. yàlla dimbali nañu kayit yooyu am nañ ko. loolu mhm. vraiment euh, duñ ni benn du ñaar ñu ngi ciy jël suñu wërsëg aussi ci marché yooyu. Mhm. di am xëy na amaguñ ci nag marché yu mag. waaye li ci suñu wërsëg. wax dëgg yàlla ñu ngi ko ciy am. tey euh, boo nu mënoon liggéey bi am na ay jafe-jafe lan lay doon. waa jafe-jafe yi xëy na mooy euh, dëkk bu toll ne Ross hmm. xëy na développement bi dafa ko yaatu noonu. Hmm. Euh, solidarité rek moo war a am mooy jàppalante mhm. tey da ngay gis ko am liggéey mhm. xëy na bàyyi fi ouvrier yi fi nekk dem feneen beneen dëkk liggéey yi fa mhm. loolu bokk na daal ci la may ñaawlu parce que tamit ñun bu ñu ñëwee ànd ak ay xale mag ay treize booy wala quatorze xale ànd ak ñoom boon suñu sago tey ku am liggéey bañ a jéggaani dem feneen ñëw am si une confiance loolu na tax ñu gën a sawar ci li ñuy def ndax ñun tamit dañuy jéggaani feneen di sàkku ci xam indi pour rek développement pour rek taaru Ross Béthio kon bu ñu defee loolu ba pare ñu bàyyee ñu fi dem dem beneen dëkk di fa liggéey yi di indi ci biir dëkk bi te bu paanee seeli wala ñu paan dara ñun la ñuy woosi pour ñu réparer ko loolu tamit du ñu neex bon mhm. suñu sago nag bu ñu amee lu ndaw jox ñu waaye bu ñu amee lu mag tamit jox ñu mhm. loolu moom vraiment na tax ñu gën a sawar te it la gars yi di jéggaani ji looloo fi ne moo fi nekk mhm. foo mënti dem bunt bois ngay am foo mënti dem buntu aluminium ngay am foo mënti dem inox ngay am foo mënti dem fer ngay am feer ba nekk Dakar moo nekk Ross xëy na xam-xam bi te xam-xam bi mu ngi fi ndax boo xoolee photo yi nga fi jël xam nga ni ñu ngi góorgóorlu ah loolu ndax du ci jafe-jafe taamu nit ñi tamit léeg-léeg nit ñi daal di gis style boo xamante ne da leen di yóbbu fan ko gisee rek waaw xam nga man ko mel ni man. parfois damay toog une semaine deux semaines dem Thiès. dara du ma fa yóbbu loolu xooli ay ay nouveau nouveau modèle yu génn bees. loolu dama koy def. dem xool la nga xam te ne agseegul fii ma foto ko fexe koo indi fii. loolu nag mooy développement. ndar xëyul sotti. kon da ngay xool li amagul nga dem jëli ko fexe koo indi ñooñ nag ñooy liggéey lu ñoo la mën a jàppale ci loola. ginnaaw jafe-jafe boobu yan jafe-jafe moo am ci liggéey bi ndax du ñàkk léeg-léeg di ngeen soxla. bu yokk seen doole ci wàllu moo xam muy financement programme état yi ak yéen wala yombalal leen marché yi nga xamante ni mooy marché état yeeg yooyu yan jafe-jafe mu ngeen gën a ci wàllu woowu waaw wàllu wàllu moom mooy tàllal loxo ñëpp rek tàllal loxo ñëpp parce que vraiment dana xam na ni mbooloo mooy doole te vraiment képp ko ñemee dañu laa déy mhm. donc buñu sogol bu doon suñu sogol tamit ñi nga xam te ne ñooñu féete ci kaw suñu mhm. bàyyi xel ñun waa dañu jàpp ne rafet dëkk bu ndaw la rek mhm. vraiment ñuy jappalé ci marché yi nga xamanteni moy gënd marché yi mag ñu ngi ciy jàppale mhm. ñun tamit ñuy mëna jappalé xalé yi ñu andal mhm. loolu vraiment dinañ ko soxla trop moy suñu jafé jafé mhm. euh, walu ouvrage artisanat ci Ross Béthio nan nga jangaté seen situation euh, walu ouvrage wa walu artisanat bi wa artisanat bi mom machallah vraiment ñu ngi and ñu ngi bok ndey ak bay comme man lima gis bok wax deug yalla di manke dara dem sa moromu ouvrier mu jox lako lele tam sa morom ouvrier manke dara ñew fi ci man ma jox ko ñu ngi jappalante dal liñ mën wax deug yalla ñu ngi jappalante liñ mais lan nga japp ni war nañ leen ko defal ñoom artisanat parce que tamit artisanat japp nañ ni bu rew jëmee kanam bok na ci wa ñun artisanat dal li ñu ci ñom rek moy comme li wax tay soxla nañ ay formation da xalé yi lu leen jangal jangal dina am lu dess kon soxla nañ ay formation yo xamne ne ba su sago dinañ ni si jàppale diñ jëlit ay formation di indi di former xale yi ñu ci sàkku xam-xam loolu vraiment soxla nañ ko waaw loolu da mooy suñu jafe-jafe ay formation daal soxla nañ euh, tey euh, ginnaaw si euh, jamono bi ngeen toll nii ak ni nga xamante ne def ngeen ko ci wàllu évolution ci liggéey bi dem jéggaani ji yeneen di bees indi fexe mbir mi gën a xarañ fan la ñu mën a xaar ngeen jëm fa ëllëg waaw fi mën a jëm daal mooy fi ñëpp bëgg a jëm rek mooy yokk ba ñëpp seen rek ñun daal ci loolu la ñuy dox ci la ñuy wax bon suñu sago daal suñu ëllëg mooy ëllëg goo xam ne entreprise yu am doole dinañ ne ci Ross Béthio liggéey yu xarañ yoo xam koo gis dina foog ni li jógewul Ross Béthio vraiment daal fépp fu ñu séentu Dakar dafa séentu yeneen dëkk yi nga xam dëkk yu mag yi dinañ fa séentu Ross te loolu ñun artisan yi ñoo fi mën a indi parce que tey looy lu fi rafet ak ñun la kon bon suñu sago daal ñu ba lépp lu am ci dëkk yu mag yi rek am fii ci lii machine yi ko formé amul respect kon yëpp tey ñu ngi tàllal loxo ñëpp pour ñu jàppale ñu ñu am machine yi nga xam ne tey bu bëggee formé ay